Thank you. kawteef bu doy waax la nemmeeku ca diwaanu Linguère mu ñeel nag mbirum càcc gu metti goo xamante ni nag doon nañ ko amal ca boutique boobu nekkee ca diwaanu Linguère li gën a doy waax ci mbir mi nag mooy kii nga xamante ne moo doon amal bile càcc dañu ko xam lool fii ci diwaanu Sénégal daal di koy ràññee nekkul kenn nag ku dul tiktoker bi nga xamante ne moom mooy Sambaka ñu gën ko xam nag ci rang muy moom Sambaka mii la ñu ko nag ci vidéo yi nga xamante ne nag doon na ko faral di def ci tiktok bi moom mi la nag nee nañu moo amal bile ñawteef ca dëkk boobee nga xamante ne moom mooy diwaanu Linguère bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne nag jot nañu ko nee nañu nag dafa dugg ca boutique ba doon amal ak càcc ca jamono boobee nag caméra de surveillance yi nga xamante ne defoon nañ ko ca bërëb boobee filmer ko muy amal nag biile euh, càcc ca gannaaw ba nag ñoom moom boutique ba taal li nga xamante ne moom mooy seeni i de de surveillance kanamu ko sàmbaka gi nag ni tàyyi ca vidéo yooyu ñu daal di koy gis nag ba ñu ko gisee la ko jël nag daal di koy jébbal yoon jamono ji ñu waxe ak yéen nag sambaka mu ngi ci uh, kaso bi mu nekk nag lu doy waar loo xamante ni nag daanay am uh, ca diwaanu uh, Linguère mbir moomee nag daal di bett ñëpp fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Sénégal ndaxte jamono ji ñuy waxe ak yéen nag vidéo yi ñu ngi koy wasaare ci biir réseau sociaux yi du ñàkk nag dañu am yeneen i xibaar laale nag ak mbiri tiktoker bi nga xamante ne moom mooy Samba